الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi dellu di nuyu mbokk jullit yépp nuyoo sell nuyoo bu kawe waaye di ñaan sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala képp kuy teewloo sunu kàddu sunuy kàddu fekk la ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njéggalam ñu dellusiwaat ci suñ jataayal yóbbulu ndaw ñi muy jataayal fàttalikonte waaye di jataayal xam-xam suñu bàyyee xel nag suñ jataay yi weesu ñu ngi tolloon di jàngale ci teggini aji sàkku xam-xam teggi nga xam te ni kii sàkku xam-xam moom la war a amee ñu limoon ci nag yu bari ci suñ jataay bii mujj bokkoon na ci kii sàkku xam-xam wërta sàggane julli juróom wërta sàggane ay farataam da cee war a farlu waaye wërta nay ci xam-xamam bi nga xam te ni daf koo am ngir xamal ko yeneen jullit wala sax mu nekk ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ciy sàkkoo xam-xam dafa laabir ci aale ko képp ku ko yittewoo ngir yaatal xam-xam moo tax mu ne bokk na ci ay teggin yi nga xamee ne aji sàkku xam-xam ji war na koo am moo tax mu ne wa ay suma ata foo xamee ne dikk na minal xalaa i tukkee ci wanag wa moom mi nga xam te ni aji sàkku xam-xam la mu ne baxada i ihi ginnaaw ba mu fajee ay aajoom ba pare maxastin jaa i ànd ak tànc mooy raxas sobe si rek summa araada topp mu namm mooy topp mu bëgg almasalaal lil kitaay bi ñeel téere ba fal yàq na ragas na raxas alyaday ni ñaari loxoom bistihbaabi ci sopp mu ne bokk na ci teggin kii sàkku xam-xam boo xamee ne yàlla dogal na mu yor ab téere ndax doom doomu mu ne ko suñ borom bindee mën di ñàkk yenn saa yi mu am ak laat yenn saa yi du am ak laab waaye heure boo xamee ne dem na ci wanag wa ba faj fa aajoom ba pare ba raxas sobe fa ndax sobe ñu ngi koy raxasee ci am ndox bam set bu génnee wala jëmaat ci téere ba mu doon yittewoo ngir sàkku xam-xam war naa dem fexe ba raxasoog ndox ba set loola jël téere ba doonte sax raxasoo woon na ak ndox ba set waaye dañuy sopp ci moom mu yeesalaat ak raxasam ay loxom ba mu set doole yëkkati téere ba loolu bokk na ci teggin yi moo tax mu ne aw yatawadda a wala mu jàpp summa yaaxusi topp mu jël alkitaaba téere ba mu bajj lan mu mbir mu muy aji màggal moxtarima kay muy aji wormaal yax wii dana làq asawaaba yool wa mooy tiyaaba ja rek mu ne sax li ci gën mooy mu dem jàpp bu fekkee mën na ko balaa moo laalaa téere mu dem jàpp ba sell doole jël téere ba ngir màggal gi muy màggal téere bi ak warmaal ga muy warmaal xam-xam ba te yàlla rek tax nee na loolee sunu boroom dina ko defal aw tiyaaba kan kiy jàng xam-xam war fonk bu baax téere yi muy jàngee xam-xam ba nga xamee ne heure bu ko am njàppam tojee ba yeesal ba pare doola jëlaat téere yi wala ay loxoom ba set doola jël téere waaye nag jàpp ga moo gën mu ne waxu da na min ha bokk na ci ay teggin kawnuhu ak nekkam muxtarima di aji wormaal li sayxihi ñeel ab sëriñam waxaadiman tamuy aji liggéeyal ko muhazima tamuy aji màggal ko ne ndax fa kullu man képp koo xam te nii lam yur di deefu ko gërëm sayxoo sëriñam wala nga lam yur gërëm loowut sayxoo ab sëriñam fala yanaalu déet muy am fi tilmisihi ci ak njàngam maa la nga xam ni amala ndugal ne ko mu ne bokk na ci teggini aji sàkku xam-xam ji ba tey muy war maal ab sëriñam di koy jàngal te di ko màggal waaye te di ko liggéeyal fonk sëriñ bi moo ndax képp koo xam te ni kan sëriñam ba koy jàngal gërëmu ko néewaana mu am ca la muy jàng la mu bëgg dëgg-dëgg kon sëriñ bi nga xamee ne mooy jàngale ab xam-xam kiy jàng bokk na ci ay tegginam mu fonk ko wormaal ko teg ko kawe te di ko liggéeyal nga xam loolee dina tax xam-xam ba am barke dina tax mu am lam bëgg ca xam-xam bu muy sàkku moo tax mu ne is ngir jaa a dikk ne am na nafa naka njariñ wala nga ne inna nafa naka jariñ man ka xam te ni taxallama xamlu na nii ta ajeef na ko bi ijlaali lazi ci màggal ka nga xam te ni xadd xallama xamal na ko mu ne kat wax nañ ne naka njariñu ka nga xam te ni dana jàng ñi ngi ko aj ci màggal ga mi màggal ka koy jàngal kon day mel ni kiy sàkku xam-xam ay njariñu xam-xamam ñi ko aj ci ki nga xam te ni moo koy jox xam-xam ba ca nam ci kam nam ko màggalee ci kam ko fonkee ca kam nam ko warmaale wax sax ne képp koo xam te ni day sàkku xam-xam te fonkuwut ka muy ka muy sàkku moom faw des na ko fay bor bu demee ba yàlla dogal muy jàngale bu amee kuy jàng ci moom kooki du ko fonk te bu bëggee xam-xam day mel ni xam-xam bu mu bëgg njariñ li dëgg ma nga aju ca ka koy jàngal day mel ne yaay aj njariñ li te koy jàngal xam-xam kon képp kuy sàkku xam-xam jaadu na mu fonk ko koy jox xam-xam ba warmaal ko màggal ko waaye di ko liggéeyal sax ngir xam-xam ba barke ngir ngir lam bëgg mu barkeel kon loolu lu gën a bàyyi xel la kon xam-xam ki koy jàng te kam koy jëlee war na koo fonk ndax kam koy jële kat mooy ab sëriñam war na koo liggéeyal loolu lépp ngir dabu barkeeb xam-xam ba loolu lay tax xam-xam ba yomb te barkeel kon loolu lu jara bàyyi xel la lu am solo foofu la yemale buntu ba mu doon jàngale ci ñi sàkku xam-xam seeni teggin kon jox beneen jataay bii di ci sàppi kii sàkku xam-xam ay sàppam muy lu am solo waaw kon ñu ñaan suñu boom defal ñu dégg ak topp boom gën a sàmm gën a yaatal wërsëg yi gën a yaatal alal ji te barkeel lépp barkeel yonent bi sallallahu alayhi ñu ñaan suñu may ñu beneen jataay incha allah rek ñu fekk ko ak jàmm kàttanu yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi sant képp koo xam te ni ñu ngi doon teewlu jataay bi di leen ñaanal ñaan suñu boom may ñu gudd faral wér loolu yu bari tabarkeel wërsëg bu bari tabarkeel barkeb Sëriñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu